Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen nuyu bu baax a baax di ànd ak gi yéen ci suñu émission bi di ëttu xam-xam ni koy defee saa su nekk rek tey nag ñu war a waxtaanee benn histoire bu am solo boo xamante ni ñu bari war nañ cee bàyyi xel fàttalikuwaat bu baax a baax kan moo nekkoon ki ñuy war a waxtaanee muy Firawna Firawna nag ku ko dégg xam ni. buur la woon boo xamante ni demoon na ba yaakaar ni moom mooy yàlla demoon na ba yaakaar ni moomoom nit ñi demoon na ba yaakaar ni moom daal sañ-sañ bu ne mën na koo amal ci àdduna ndax naagu na naagu boo xamante ni pour moom du fi mës a jóge pour moom du mës a dee pour moom day dund ba ilaa yomi diin ñu ñëw ak yéen det ci kooku fan la depare fan la jaar fan la àgg ak itam naka la yore woon nguuram ak naka la génnee àdduna moom aw na Firawna na nekkoon koo xamante ni jeune la ret waaye ndaama la woon ndaama woon ndax foo gis ndaama day bari solo fi mu njëkkee moo di dafa jóge woon dëkkam ñëw ci benn dëkk di jaay maanaam xam nga ret di xoslu di jaay ay xaal moom aw na mu door loolu di di commerce yàlla dogal commerce bi doxul ndax ku bëri woon pexe la moom aw na mu ne kon xaaral ma commencé buux ñu may fay comme puus-puus yi rek nekk ci loolu ay weeri weer dem ba at sax mu ne man daal li ma nekk nii xam naa ni du dox te man damaa war a bokk ci ña nga xamante ni dañuy am ndax man waruma ñàkk mu toog ci dëkk bi di xalaat mu toog ci dëkk bi di xalaat moom fiir na ba maanaam xelam ñëw ci benn mbir mu ne man daal xam na daal leen laa def dem toog ci armeer yële toog fa waaye xam na daal soo ma fa toogee daal yàgg-yàgg pexe dina ma fa fekk moom Firawna mu daal wutal boppam benn place ci ay armeer yoo xamante ni ku dee ca dëkk ba rek foofee lañ lay suul moom aw na début moo nekk nii moom mu dem ci armeer ya nekk fa moom daal bu nit ñi àndee seen niiw rekk bala ñu ko suul mu solu ba jekk ñëw génnee benn kayit ne yéen ñii di suul seen néew dangeen a war a fay quinze francs ndax quinze francs yi moom la dëkk bi santaane léegi képp koo xam te ne am nga néew il faut nga fay impôt bii nii xam nga nit yenn saay bu amee nakar du xool sax ba xam kii li muy wax dëgg la mbaa du dëgg ku ñëw rek mu encaissé quinze francs di def noonu di def noonu di def noonu dem ba nekk millionnaire ci naxaate boobu noonu war yi naan pexe bu ñaaw ñett fan la bis bi nga koy def bis bi ñu la maanaam bis bi la ci nit ñi di xamee ak bis bi nga koy bàyyee ñett fan la muy maanaam pexe boo xamante ni jaarul yoon yàlla dogal am bis nag ña nga xamante ni ñoo nekk ci nguur gi am seen néew war koo suul ki ay armeer ñu fekk ko fa moom aw na moom xamul ni kat ñii ci nguur gi lañ bokk mu daal di génne kayit ne da ngeen di fay ñooñu ne ko tiib jàpp pour ngeen digg ma ñu yóbbu ko police police xool dossier yi ne non lii ci procureur la jëm procureur xool dossier yi ne lii ci président tribunal la jëm président tribunal xool dossier yi ne lii moom faa mu dem ci ministre de l'intérieur ndax cas bii dafa garaaw trop ministre de l'intérieur xool dossier fi aw ne ne lii moom faa mu dem yegg ba ci président de la république ca jamono boobu moom fir aw na nee leen ci xoslu la njëkkee moom fiir aw na bi ko président de la république nag gisee waxtaan ak moom ni ko may yow sa pexe yi lan moo la ko jaral lan moo tax nga def ko mu ne dafa fekk rek yow liggéeyoo ndax boo liggéeyoon ña nga teg ci réew mi war nañoo mën a xam bu baax a baax ñan ñoo nekk dëgg ak ñan ñoo nekk ci njuuj njaay ci biir réew mi kon président pour nga digg ma rek bëggoon nga xam ni dëkk bi liggéeyuñu moo tax ma def pexe bii nii ndax moom ku am xalaat la moom moom Firawna rien que pour génnaat ci li mu nekk moo tax mu xalaat loolu automatiquement président ko mais wax nga dëgg ah automatiquement président daal di signé décret dàq ministre de l'intérieur daal di koy fal moom Firawna ministre de l'intérieur déjà réussir na benn coup moom fiir aw na yàlla dogal bi ñu ko dénkee intérieur réew moomu muy liggéey nag teg réew mi ci rigueur amul tappale amul dara mu ciy nekk ba bis ñëw nag moom Firawna ñenn ñi nee nañ président ba ba daal di génn àdduna ñu teg loxo maanaam ñu ñu teg réew mi ci ay loxoom ngir rigueur bi nga xamante ni amoon na ko moom Firawna ñeneen ñi ne déedéet dafa def coup président boobu noonu daal di toog. nekk nag un président bu mat sëkk ci réew mi di liggéey bi mu nekkee président nag ci réew moom moom moom na commencé nag wane benn njàmbarte ci réew mi wane sañ-sañ ci réew mi réew mi ñépp jug ñii commerce di commerce ñi yor justice di liggéey ba nag mu commencé dem nag ba xam ne nag léegi réew mi tegu na ci loxo yu wóor réew mi mu ngi ci yoon nag mu commencé andi nag sañ-sañu boppam ni nag léegi moom mooy buur di nga gis yenn saay nit bala moo nekk président de la république dina ne kat man su ma toogee ci réew mi justice dina jaar yoon ah euh, la nga xamante ni moom mooy koom dina jaar yoon képp daal koo xamante ni fal naa la ci fànn bu mu war a doon di nga ko jaarale yoon mbaa ma rek sa ndigg moom nag na commencé naagu nag commencé salfaañe justice réew mi commencé euh, foqati ak ko ak yelleefu waa réew ma moom fiir aw na dem ba ku mu neex jàpp ku mu neex rey ku mu neex exilé te nag wax naa leen ministre dong la woon de ñëw ba tokki réew nag commencé def ay semsi ne moom Firawna yàlla dogal nag moom na ba nga xamante ni nag commencé naa def yooyu nag xam nga buur day jékki-jékki rek yaakaar ni moo mën lépp am ñu ko wër ñoo xamante ni ay boroom xam-xam lañu am ñu ko wër ñoo xamante ni ay gisaanekat lañu moom Firawna ñooñu ne ko kat gis nañu ko soo moytuwul sa nguur gi am na góor goo xamante ni mu ngi war a juddu ci at mii nii kooku moo nar a folli sa nguur gi nii bi Firawna déggee loolu nag xam ni moom nag léegi il faut que mu jël ay matukaayam pour góor googu war a bañ a judd ci réew moomu noonu mu daldi di yónni ay soldaam ne leen toppal leen ma jigéen bu ëmb ci réew ci biir réew mii nii ngeen toppal ma ko bu amee doom bu dee góor la rey leen bu dee jigéen la bàyyi leen noonu moom aw na que rek ngir ragal ñu foqati nguur ci loxoom yàlla dogal ñamu yónni di saytu di saytu di xool bu dee góor rekk ñu rey at moom liñ ci rey ci ay liiri góor kenn xamul ñaata la ndekete yoo nag Muusa war naa juddu yàlla dogal moom Muusa ba nga xamante ni judd na xam nga moo tax indicateur yàgg na ci réew agent secret yàgg na ci réew am na ñoo xamante ni ñoom ak Muusa ñoom ñoo takkaloo bi nga xamante ni nag Muusa yàllaa ko aaral boppam ci biiru yaayam ba mu juddoo am koo xam dina digg na liir buy jooy mu ne leen bu ngeen demee kër gii nii dégg naa fa xale boo xamante ni mu ngi jooy bis ñëw rek yaayu yonent yàlla Muusa di togg añ dégg soldat yi ñëw mu xam ni bu ñu ñëwee dañuy jël doomam rey ko rek mu tiit daal di ibbi cin bu tàng jër duggal ci Muusa daal di tëj ndax boobu fekkee na loolu rek moo nekkoon solution bi moom bi soldat yi ñëwee di xool ci kër gi dugg nañ fépp xool waaye boobu moom xoolam mu ngi tàng jër ndax xam na ni jën na doomam duggal na ci biir cin moom jàppoon na ni moom Moussa saye dee na moom yaay yonentu yàlla Moussa léegi nag bi nga xamante ni ñooñu dem nañu yaay yonentu yàlla nag jot ndigal ca yàlla mu dal di jël Moussa moomee def ko ci pañe ndax pale bi na nekkoon dafa jàkkaarloog ab géej walla dex pour ngeen digg ma yaa yontu yàlla Moussa jël pañe ba mu jekk dugal ci Moussa bàyyi pañe ba dem gis nga daal jabaru na moo génn rek di promenade ci buntu pale ba gis daal ab xale bu ñëw moom def ko gis rek daal di daw Firawna itam ñëw xool ne ah xale bii de góor la waaye soxnaam ne ko comme que ñun sëy nañu ay ati at amuñu doom xëy na lii kaddaloo boo xamante ni sa nguur gi dañ ko récompenser rek nañ ko jël def ko suñu prince daal di koy yar Firawna ne ay ne ko pourtant wax nga dëgg ah. xam nga buur li lay folli doo ko xam buur liy daaneel sa nguur doo ko xam yàlla dogal nag moom na dal di jël Muusa mu ne waaye nag xale bi faa ma testé ko dinaa def ñaari mbir yoo xamante ni dinaa xam ba xam kii pour daaneel sama nguur moo ko tax jóg wala dafa ñëw ni naturellement rek mu ne cadeau boo xamante ni dañ ma koo jox mu daal di teg fële xal daal di teg fële xaalis mu ne xale bi bu raamee dem ci xaalis bi automatiquement dama koy rey waaye nag bu raamee dem ci xal mi nag ba xam ne kii muusul mu teg fële muusa daal di teg xal teg xaalis Moussa di diraam di raam dem ba jël xaalis bi yàlla orienté Moussa mu jël xal bi daal di koy seex làmmiñ bi lakk loolu waral Moussa làmmiñam dafa xawoon takk moo taxoon ñu jox ko ñaan googu ne ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani xaw qawli moom yonent yàlla Moussa mu nekk ci pale bi ret ak fiir Firawna waaye fiir aw Firawna tolloon foo xamante ni daal bew ba mu woon kenn xamul naka la gis nga aw na bu daan dem toilet amoon na ay jaam yoo xam ni ndënd yu rëy rëy lañ daan yor gis nga bu xasee toog di dem toilette dañuy tëgg rëng dëng dëng dëng dëng dëng dëng muy dem toilette ba mu pare ñu nekkaat ci seeni effort ndax kenn du dégg ndax maanaam bu daan dem toilette ay bruit yu rëy rëy lay def pour nag maanaam masque loolu waraloon bu dem toilette day am ñoo xam ne dañoo di dëgg ay ndënd yu rëy ngir ñu ngir ñu bañ a dégg li nga xam te ni na mu ngi koy def ndax moom yàlla la jàppe woon boppam moom daawul feebar daawul feebar daawul sonn te régulièrement la daan lekk te nag woon yaayam la moom Firawna loolu rek moo taxoon mënuñu koo jaar fenn bi nga xamante ni nag moom ci yàlla Moussa màgg na xam ni nag moom yàlla yónni na ko te mission bi moo di mu déclarer guerre na mu daldi di génn pale bi commencé nag tàggat waa bani Israël di leen tàggat ci jaamu yàlla bi Firawna yéegee loolu ne mee yéen Moussa ni leen ko man maay yàlla na bàyyi li muy def xam ni na nangu ndogal yàlla amul man maay yàlla ana rabbukumul aala mu ne leen laaj leen ma Moussa kan mooy yàllam Moussa ni leen bu ngeen demee ni leen ko mooy ki nga xamante ni mooy dundalaate mooy reye moom yàlla bi ma bi ma gëm Firawna ne ah xaar leen ma wal leen man maay dundal man maay reye daal di jël ñaari prisonnier mu jël kenn ki daal di koy rendi jël kenn ki daal di koy may liberté ne mu ngi ni dundal naa reyal naa mu ne leen dem leen ngeen ni ko yàlla jama gëm du dee mukk aw na xëy ne nag moom comme que yàlla ji mu gëm du dee mukk te mu ngi ci kaw asamaan dinaa bombardé asamaan firaw na génn daal woo ay seeni room ak ay maanaam arme bi yëpp ne tiré leen kaw asamaan gars yi di tiré ci kaw bum bum bum bum yàlla won ko ni ko kat pour beewloo ko rek daal taw yàpp ak deret mu ne saye seen yàlla gi dee na gëm leen man may yàlla man duma dee guerre Moussa ak Firawna nag daal di commencé façon bu ne maanaam pièce bu Firawna teg rek Moussa li ko ndax Moussa yàlla la àndal du tiit du ragal xam nga jamonoom lan moo gënoon fës muy njibar Firawna daal amoon na ñoo xamante ni ñoom la dajale woon daal pour ñuy njibar benn bis ndax yàlla Moussa dafa amoon yat woo xam ne da ci am ndigalu boroomam bu ko tegee mën na nekk jàng bis jot mu ne léegi musaa lan la bëgg confrontation na ñëw dinaa ko won ni que nag man la ma am moom amu ko te man maay yàlla fii lay jaaree non ko ba faw nag ñu woote benn assemblée nag pour toog benn maanaam. Euh, cérémonie boo xam ne dañ ciy def seeni démonstration aw na ay buxaabam teg ay jaan ñépp daw bi musaa tegee jaanam bi jaanam bi lekk jaan ya fa nekkoon yépp ngaan teg benn maanaam tuñ bi ci suuf beneen bi kaw asaan ba nga xamante ni même ñi ñëwul woon ci assemblée ba sax dinañu gis kat jaan bi na nga xamante ni noonu la ko mel ci saase Firawna daal di tiit nee nañ bis boobu na dem na ko douze quarante fois ngir tiit ci koo xamante ni neewoon nga yaay yàlla léegi nag Moussa leen rek moo nekkoon problème am moo di ñaan yàlla fiir Firawna daal di alku ndax façon ñaan bu ne ñaanoon nañ ko ko moom yàlla ngir na alku waaye yàlla di seetaan rek moo tax yàlla yàgg naa seetaan ku ne yàlla du seetaan yàlla seetaan lu ko lu ko ëpp lu ko raw ndax xoolal Moussa ni mu gëmee yàlla fiir aw na di mbubboo yàlla yàlla di seetaan rek ndax nee nañ Iblis. la muy bono bon bono bon nee na Firawna yow moom la yow moom yaa yaa jël raw gàddu gi ndax la nga wax man waxuma ko ndax nee nga yaay yàlla yàlla dogal nag Moussa daal di cookaas na xeex moom ak ay nitam ba nga xamante ni nag ca la yàlla maanaam jële décision daal di alak Firawna moom Moussa nag daal di attaqué Firawna xeex dem taxaw ca bopp dëkk ba ngir war a génn Moussa woo ñoom ànd yëpp ne leen kaay dañuy dem tey nag la dëgg di feeñ suñu suñu digganteeg Firawna yàlla dogal moom Firawna nag daal di ay généraux am ak ay officiers de police am ñoom ñëpp daal maanaam képp koo xalaat maanaam moom ci armée bi ñu ànd ak Firawna daal di topp yonent yàlla musa musa di génn dëkk ba di gàddaay ànd ak ay nitam ñu ne ko inna la mudrakuuna mu ne déedéet. inna may rabbi sa yax diin waaw yàlla rek moo ñuy gindi ñu nekkaa leen dem gars yi dàq ji ko pour ngeen digg ma bu doon île gore dem ba ci tefes ga nga xam ne fii moom géej rek moo la wër munoo génn munoo dem yàlla na ci yàlla musaa jëlal sa yat bi idrib bi asaakal bahar musaa jël yat ba daal di koy dóor ci géej bant ba daal koy eh, géej ga daal koy delloo bant ba Moussa duraat encore bant bi ci géej bi géej gi delluwaat ko bant bi ñu ne ko Moussa daa am loo fàtte salli ala muhammad jullil ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Moussa ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim daal di door bant bi ci géej gi géej gi daal di xar mu ne sama gars yi kaay leen nañ dem bi nga xamante nag Moussa ak ay waayam ànd jéggi nañu géej ba bi Firawna ak ay nitam yéegee ci géej gi nag. Moussa daal di dóor bant bi ci géej bi géej gi daal di dajaloowaat ñooñu Firawna yëpp daal di lab waaye nag maanaam pour won Firawna bon gii mu bonoon na tax yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla yàlla maa ngi lay ñaan moom fiir aw na ko géej bi gékki ngir ñu xam ni kat moom dee na looloo waral nag ba nga xamante ni ñamu àndaloon ñëpp lab moom moom Firawna géej gi daf ko daal di gëkk buñ ko suulee mu daal di sulleeku looloo waral boo demee ci Égypte moom fir na ba tey yaramam mu foofu ndax suuf bëgg ko ndox bugg ko dara bëgg ko kon bew ga mu bewoon nag moom aw na waral yàlla sanctionné ko nii li ñuy jàngat nag ci histoire gi moo di képp koo xamante ni buur nga yàlla jox na la la nga xamante ni moom moo di dayo pour diriger na nga xamante ni kat sa sa nguur googu dafay jeex waaw ndax yàlla nee na ci alquran limanil mulkul yowma walillahi alwaahidul qahaar gis nga bis dina ñëw nga xamante ni yàlla bu rey ñëpp ba pare yàllaay daagu wone boppam ayna al muluk wa ayna abnaul muluk waaw ana buuri ana doomu buuri kon tabaarakallahu nga xam ni rek yàlla lépp loo xamante ni jox na ko buur def ko daal di dénkaane waaye du loo xamante ni dafay sax ba faw kon képp koo xamante ni muy réew mi di bitim réew yàlla jox na la benn responsabilité da nga xam ni ëllëg ci biir yàlla na la woon ne la kat nekkoon buur waaye damaa jël sama un pourcentage waaw sama un pour kii la nga xam ne ni maanaam moom moo di sama nguur ma dénk la ko kon nañu ragal yàlla xam ni képp koo xamante ni yaa ngi dund bis dina ñëw ñu takk la ba nga dëgër gaskaam ba mu xóot dugal la ci te bu boobaa nag di nga rendre compte suñu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla dafa ñu dégg ak topp nga la képp koo xamante ni ñoo ngi la dénk benn poste de responsabilité na nga xamante ni loolu dakat bis dina ñëw dina jeex ndax yàlla bis yowmal qiyaam ni ma leen ko waxee sànq al yawma naxtimu ala afwaayihim ka ay wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima si buun gis nga yàlla lépp loo xamante ni def nga ko sa loxo signé décret boo xamante ni waroo ko woon signé sa làmmiñ wax waru sa làmmiñ wax loo xamante ni waru ko woon a wax sa xel xalaat loo xamante ni waru ko woon xalaat sa bët xool loo xam te ni waru ko woon xool ëllëg yowmal qiyaam qiyaam di nga ko rendre compte suñu borom subhanahu wa taala kon yàlla yàlla def dëgg ak dégg ak topp lii moo nekkoon tey aw na di buur boo xam ne dafa naagu woon lool yaakaar ni daal àdduna du jeex fii la mujjee fii la ko yàlla alage wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala